à la chaîne mbokk yi barki Dembo Ndiaye Adji Sarr ak ay mbokkam dañoo dem defi manifester buntu tribunal bu Ndakaaru déclaré wuñu manifestation ñu indi seen pancarte buntu tribunal kenn jàppu leen kenn dóoru kenn buntu xatalu leen mbokk yi bu ñu demulee rëbës ñun la neex bu ñu demulee rëbës pour génnee Cheikh Omar ñun la neex bu ñu demulee tribunal génnee Cheikh Omar Diagne ñun la neex ndaxte kat aji saar ak ñi ñu àndal ñu ëpp gëdd ñu ëpp sañ-sañ que ñun ñii nga xam ne Cheikh Omar Diagne moo ñu tax a jóg jaay doole bu ñuy jaay doole Cheikh Omar moo ñu tax a jóg kon comme aji Sarr ak ñi mu àndal dem nañ ak seeni pancarte buntu tribunal te kenn jàppu leen kenn dóoru leen kenn garde leen kenn deferewu leen ñun nañu waajal Cheikh Oumar buñ ko libéréwul fii ak mardi fii ak altine prochaine manifestation buñ ko wootee fii man duma ñëw prochaine manifestation pour Cheikh Oumar Diagne buñ ko wootee fii duma ñëw man la engage prochaine manifestation Cheikh Oumar bu génnulee dañ koy fekki rëbës dañ koy fekki tribunal dem jële ko foofu dama ne suñu équipe nationale football muy ay jàmbaar li ñu jàngal ci match bu mujj bi mooy dóor fayu du saaga kenn du ñu dóor kenn waaye ku dóor ñu fayu du saaga kenn duñu tooñ kenn waaye boo jàppee ci lu dul dëgg du yoon Cheikh Omar ñu wan la ko dootuñu nanguti ñuy jël en otage suñu ay jigéen suñu ay góor suñu ay càmmiñ suñu ay jàmbaar ndax lan dañuy défendre Sénégal dañuy défendre Afrique dañuy défendre seen conviction Cheikh Omar foofu lay daanelee c'est un détenu d'opinion gëj ngeen dégg loolu am na ay sénégalais yoo xam ne xamuñu sax lan mooy détenu d'opinion emprisonné pour ses opinions mooy dañ la jàpp ndax sa gis-gis Cheikh Omar c'est un détenu d'opinion Sénégal rek la am détenu d'opinion dafa ñaaw waaw di nga dem ci réew yi nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom ñoo gën a dellu ginnaaw ci wàllu démocratie kenn du la jàpp ndaxte da nga am gis-gis bii waaye léegi yow Sénégal muy réew mi nga xam ne dootuñu la jàpp ndaxte da ngay défendre góor jigéen dootuñu la jàpp ndaxte da jàpp ne góor jigéen c'est normal mais dañ lay jàpp parce que d'accordoo ak agenda LGBT Goulette pour la première fois au Sénégal ñooy jàpp nit ndaxte il dit non à l'agenda LGBT gàcce la pour la première fois au Sénégal muy kan muy Cheikh Omar Diagne moo tax foofu lay daanele Afrique ak Sénégal war nañu bég ci Cheikh Omar Diagne askanu Afrique ak askanu Sénégal war nañu bég ci Cheikh Omar Diagne képp kuy jullit chrétien wala musulman war nga bég ci Cheikh Omar Diagne à CTV, la chaîne des patriotes.